mi nekk ci télévision bi ñuy wax euh, TFM te yàlla dogal ñu amaloon émission buñ fay amal ajjuma ci muy jàkkaarloo ma déglu ko mu wax ca wax joo xamante ni junuy doone dëgg ak junu amee njariñ ak junu euh, ñi bëgg jàmm ñépp ci Sénégal gën a ittewoo wax jooju day mel ni daanaka gisaguma ko mu wax ko ci dossier bi nga xam ne mooy dossier Ousmane songo ak aji saar te wax ju am njariñ la wax ju jara bàyyi xel la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne al ikmatu daalatul mu'mini nee ikma mbirum julit la fu ko jullit gis rek na ko jël na ko jël te uh, wax ju am maanaa ju am njariñ loolu jàpp naa ne mooy waxi ji nit war a déglu te bu ko déggee mu seet la ca gën mu jël ko allazina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanahu euh, mooy su ngeen di déglu wax na ngeen ko dégg su ngeen seetee dégloo ba noppi na ngeen seet la ca am njëriñ ngeen jël ko buuba dafa wax ne dossier bi nga xam ne moo di dossier Ousmane Sonko ak aji saar nanu ko jéem a jeexal ndax li muy yóbbu fitna ak fi mu yóbbu réew mi loolu jaru ko dossier bi jaru ko nanu seet ci gaaw nun ko gën a gaaw mën a dàkkale ñu dakkal ko ci ñaari anam yi mooy su fekkee ne dossier bi dara nekku ci nanu bàyyi kii mu dem yoonam mën a campagne ëllëg lu ko yàlla may mu jël su fekkee ne dossier bi état bi mën na ko accélérer te du indi benn kii nanu ko leere dossier bi jeex Sénégal nekkaat ci biir mais fii Sénégal nekk ci dossier bi irrisonné la la yépp doon ba ci bitim réew mu misaal ci wax ci ne jàpp Pape Alé gi sax dara gënu ko sabab lu dul ci dossier bi mu wax ci biir wax ji tamit ne mbiru aji Sarr mii ak Ousmane song fukki nit ak ñeent faatu nañ ci te ñi waral ñu sa faatu wala lit sababu faatu gi loola ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi ci sa aafiya kon day mel ni mbir mi li doon lijjanti ngir lijjanti ko ngir ku nekk jot sa àq la ca sababu waate la ca la ca moo ëpp fuufu lijjanti woon mbir mi kon bàyyi woon ko mu tëdd ak mu nelaw moo gënoon li ci juddoo li ci juddoo sunu senegaal gi ñàkk nañ ci fukki bakkan ak ñeent te dafa mel ni sax lijjanti ñoo ñu faatu moo gën a far fi di lijjanti usmaan songo ak Adji Sarr ndax ñooñee faatu seeni waajur yaakaaroon nañ leen am ci kii te ñoom ñii mbir mi buñ ko jeexaloon daanaka xawuta doon pertement ci kenn fi mu toll kenn doonu ci pertement te it tardement la te it mbir mi lu mu gën a jëm kanam Ousmane song moom di gën a avancé wu ci politique di ci gën a di gën a bari ay nit ñu ko sopp di gën a bari ay nit ñu ko bëgg aw turam yi tamit di gën a fitti àdduna bépp di ko gën a xam loolu moom jàpp naa ne day gën a am ci Ousmane song ci dossier bi moom ci boppam mi ñuy topp ci dossier bi nee na dossier bi kenn mënuma cee tëj mënuma cee dem kaso mënut na tee tamit ma doon candidat kon kooku dafa mel ni atte na boppam atte boppam sax du waru gar dëgg-dëgg wu ñuy déglu ci moom waaye nag loolu moom waxal na ko ci boppam te it li ci buuba nduur wax te buubat ku ko xam wax dëgg yàlla di nga xam ne boo ko yàggee déglu di nga xam ne ku ñemee dëgg la ku ñeme dëgg la boo xoolee lu ci nit ñi di raay raayal ak ñeme ko wax ci wàllu dëgg bu agsee moom daf koy wax ak lu ko ci mën a fekk rek lu ko ci mën a bàyyi ko ci kii dana ko wax ndax dëgg bu dee ci ñaar ñaare nga ko waxalee kenn ki ka ca des ay ñooñam mën na laa mere mën na noo àgg ci lu ñu wax la ko waaye nag moom loolu xoolu ci maa ngi fàttaliku sëriñ Mansour si mii di xalifa sëriñ Mansour sëriñ Babacar sëriñ mën Mansour mi xalifa bi mas na wax ne bu kenn daggati buuba ndax li muy wax dafa am njariñ Barthélemy Dias yaakaar naa bi mu dikkee ci euh, émission Pape Ngagne Ndiaye boobu mu doon wax ci TM wax na ko ne ko boo demee ci jàkkaarloo buuba nduur euh, dëgg rek la fay wax la mu fay wax bu opposition bi nekkee ci dëgg mu wax leen ko su état bi nekkee ci dëgg mu wax leen ko euh, loolu nag jàpp naa ne lu lu la ndax mbir mi li ci yàqu ci alal kenn kenn xamul lu ci dëgg li ci noonoo kenn xamul nu ci dëgg la am na ñoo xamante ni nag ci dossier bi moom ci leen seen teraanga am nekk seen teraanga suñ sañoon du jeex am nañ ci ay oto ñii am nañ ci kër ñii am nañ ci ay biens ñii am nañ ci xaalis loola nag wax dëgg yàlla ñooñu du ñu bëgg dossier bi gaaw a jeex waaye dossier bi jeexal ko dëgg yàlla jot na ci Sénégal booba misaal na ko ba ne ñaari at a ngi nii Sénégal tëju ñu tëju wala ñetti at ci kawit bi nga xam ne mooy feebar bi fi am ba mujj na nit ñi dañ leen di wax ne leen gën ngaa teel a tëdd na doon huit heures bu kenn génnati sa kër ci koo xam ne guddi la daan liggéey te boole ka raison yi ak raison ñu ne bu fa kenn demati bu kenn dikkati loolu metti lool bu kenn naawati demati benn oto bu mu génnati demati ci benn dëkk ñu tëj aéroport yi lépp na teg ba dakaar na na door paa sax mujj amatul kon day mel ni jàpp naa ne mbir mi wax dëgg yàlla eh, metti woon na ci ba suñ dikkee tegaat ci lii ba tey nga gis ay xale yu ndaw barki démboo njaay bi ñuy waar Ousmane songo xale yu nekk ci seeni école am ay six ans sept ans génn mel ni ay njéréer libéré Ousmane songo libéré Ousmane songo marché yi foo demati libéré Ousmane Sonko ba kere biñ koy woo bu mujj bi wax na ne benn siis boo xamante ni atte nga walla am ku kiitu bu dul Ousmane Sonko amul dossier bu toll noonu ñu mën a génne armée bi mën a génne lépp ci kenn nit ñaari nit aji saar mi nga xam ne mooy jigéen nga xam ne ci jigéen la toll dara dalu ko lu dut booba ba léegi ci fitna la nekk saña tuta dox ci mbedd mi doxin wu yaatu saña tuta wax saña tuta ree saña tuta def dara te jàpp naa ne diggante bi amoon fi borom kër sax xaj na fi ba am fi doom ba am fi doom ndax moom li ngi ko doon séentu ndax mbir ma waxoon na ne moom ci boppam waxoon na ne sama ëmb sama pataron foofu la ko yëgee ba ñëpp doon séentu kañ lay am doom loolu lépp furaas daal di xëddeen waaye loolu lépp itteelun waaye li nu itteel mooy li mën a juddoo ci mbir mi ñaataa ci yàqu ci alal ba ñoom ñu koy bàkkoo waa état bi di wax ne la amoon dootut amati la amoon dootut amati ba bu yàggut ginnaaw bi France bi fi Macky Sall demee mi ngi wax ne man ba may nekk opposition bi nan xam ne ragaluma leen man ba may nekk opposition sax ragaluma waxantuma laa bi ma yoree armée bi yore lépp loolu jàpp ma ne xaj na ci réew ragaluma Ousmane Sonko bu yàggul rek barki démb dégg ngeen ci déclaration bu mujj bi mu ne Macky Sall duma yéen ko duma woon le vingt et un mars deux mille deux mille vingt et un loola moo ko naqari ba jonne tey moom la bëgg a fay loolu bu fekkee mbir moomu dañ koo jël ñii di wax naa bu mu amati di ci màttu ñii naa eh, eh, day am eh, duma yooyu ñaar jàpp naa ne su fekkee kenn ku nekk kii danaa ko su ma ko jàppee kii ne su ma ko dabee kii ne su ma ko su ma ko jekkoo kii ne su ma ko dabee loolu jàpp naa ne lu war a jar artu la ci biir waxi buuba nduur wax na ci biir wax ji ne nanu artu nanu artu nanu artu bañ a doon magam xamoon naa ko waaye bu doon magam waxoon naa ko mbir mi mbir mu rëy rëy rëy la ku ko yebantal te it wax dëgg yàlla wax ji booba wax man gisaguma benn responsabilité nit ku ni tuddee responsable boo xam mës nga jóg nga wax mbir mi waxe ko ni te pourtant mbirum Karim Wade mbirum garaaw la dañ Karim dafa sàcc xaalis nangami kii ñu xëy xëy bàyyal bàyyil nu ko te Sénégal seen xaalis la ba nu xoolee ni mbir mii day jur fitna yu gën a yàgg di jur ay coow dañ koo bàyyi Xalifa Sàll ñu toogal nu fi ñu ne nu seen mairie bii ngeen ko dénkoon daf cee luubal nangami million ñu ne mën naa joxe concession sax mën naa joxe xaalis nangam ñu ne duñ laal xaalis ba ba xëy benn bis rek ñu ne Karim wàdd ñu ne ma Karim Wade euh, Khalifa Sall euh, jéggal nañ ko ba bërki démb weer wi yàggul dara la ne nañ leen defal amnistie moom Karim Wade ak Khalifa Sall la jeexal coow loolu nag te coow loolu tollu coowal Adji Sarr lii ak Ousmane ak àggut woon ci coowal Karim wàdd yi Karim Wade lu toll ni ay nit génnuñu woon ñàkkunu ci benn bakkan xalifa Sall ñàkkunu ci benn bakkan bii ñaata junni ñaata ñaata nit lañ ci nekk quatorze personnes quatorze yooyu xam nañ lan lañ war a doon ëllëg am na ci ñoo xamante ni boo moytuwul naa lan war a doon ñii doon ay siis ñii doon ay nangam ñii doon ñu tekki seeni réew ñii ay aafisu alxuraan ñii doon ñoo xamante ni ay ay ay ay imaam lañ. ñooñu ñu xëy xëy ñàkk leen ci ñaari nit ñoo xam ku ci nekk yaa ngi dox sa soxla ñaata nit a ci ñàkk seen alal booba wax na ne ñii tey ëllëg keneen réew mu bëggoon a dikk investir ci réew mi day bañ sax day wax ne réew mi su ma fa defee surtout sax rawatina lu jëm ci océan bi ak total ak yooyu loolu kenn ñemewu fee def dara ba ñoom ñu ngi doon daw ci dëkk yi ëpp jàmm ñu jëm faa daw fii daw nañ fi ñëw si Touba doon ko fi jéem di samp ndax xam na ne fii xëj na tuubaa li fi nekk ci jàmm bariwut fu mu am yooyu yëpp nag li mën a jeexal dossier bi na ko jeexal ñu ñaanal aji saar mu dem ci jàmm nekk wuti son boroom kër dem sëy euh, loola sax sunu mbir nekku ci waaye jàpp nañ ni jigéen ju nekk bëgg nga borom kër boo sëy waaye fii mu toll mënta am kenn ku ko labat bëggat labat wala nangam ndax lu wér mooy fi mu nekk kenn genn góor ñemewu cee dugal loxom moom mii ñemewutu dugg fenn te jigéen la dafa war a sëy war am doom Ousmane song mii mi ngi nii booba ba léegi moom it euh, fu fu mu jëm ñu koy kar ñii di yàq ñii def nangam barki démboo njaay génn na fii biñ ko fii génnee dëkk bépp ñu circulé keroog biñ koy àtte ñaata lan perte ci ci ci ci kii bi muy wuy ji ñaata lan perte ci loo xamante ni ay commerçant liggéeyunu oto dawul dara dawul dara dikkul deful nu dara ah ci mel na moom rek mel na moom rek boole ko Sénégal noonu moo Adji Sarr kàddu yi buuba nduur yi kàddu yi dëggu la ñi ko seeree tamit kàddu yu dëgg Barthélemy ku nekk xam na ne nit ku dëggula ci ciy waxam ak jëfam sëñ Mbay Mansour ñu bari dañuy wax eh, almaa la ndax ci dëggu gun ko xam kon bu booba yëkkatee kàddu yi man wax dëgg si yàlla maa ngi ko ciy félicité di wax nag wax nag kàddu yu responsabilité wax na kàddu yi ku bëgg am réew mi tamit ko xool réew ndax ñoom ñooñu fitna jooju Ousmane song ji am nañ ci TFM mu yàq nañ fa yàq RFM yàq ñaata kër te fi mu toll bu fitna amaatee ku ni ci mere ku ci sa yoon nekkut sax xoolal ñaata journaliste yi ñoo ci jeng ñiy jëm ci état bi ñiy jëm ci ci ci nguur nga xam ne ñoom ñëpp seen débat loolu lay doon seen débat loolu lay doon télé bu nekk boo xool am na ku fa nekkal Ousmane Sonko am ku fa nekkal état bi ci xëy suba ba ngoon ci loolu ngay nekk loo xamante ni ay werante la di séesalante xool am na ci ñoo xamante ni seen yoon nekku ci waaye lim ci yanu ci wàllu ay noonante xuloo nañ ci ak nangam ñee xuloo fi waxuma la nag jëlee naa ñun jullit yi bàkkaar bin ci yanu ñaata lañ ci yanu ci bàkkaar kan moo mën a wax sax mbirum Ousmane Sonko mi awma ci bàkkaar ndax wax nga ci loo xamut wax nga ci loo xam sa yoon nekku ca wax nga ci lu la leerut loo xamante ni dangaa def ne wax jooju dana naaw noonu rek dem ci eraw eh, yonante bi mu àndeek mu aas ne ko mu aas mbaa yéen a ngi seetlu li ngeen di wax mu ne ko ah yi ñuy wax yéen mu ne ko yi ngeen di waxante nii di kafanteeg yooyu mu ne ko ah loolu damaa jàpp ne kaf la rek mu ne ko ay muas yow de umpule nga xanaa xamoon ne ëllëg yemal xiyaam ñay seeni ganam di nuur ci biir sawara seeni tànk juutu seeni bakkan nuur ci sawar xóot xóoti sawara lu ko waral seen ngóobiti làmmañ rek lañuy wax ci seeni làmmañ moo tax mu aas maa ngi lay digal nela képp koo xamante ni teel na ma ñaar yi nekk ci diggante li aw làmmañam li nekk ci diggante ñaari ŋaawam tuñam ak li nekk ci diggante ñaari poojam ma warlool ko àjjana kon kay wax de yàlla wax ji nan ko dàq waaye li nekk débat suba nekk du baax ngoon lii daal vraiment maa ngi ci ñaan kàddu buuba gi yal na ko yàlla yëkkati ba sénégalais yi dégg ko yal na ko yàlla yëkkati ba sénégalais yi dégg ko wax ju responsable la wax ju bëgg jàmm waa joo xamante ni mbir mi ku xewoon sa biir kër jéem nga ko lijjant bu yàgg waxantuma laa nag mu xew ci am réew am réew moo xamante ni dañoo bëgg avancement barke mu ñu ngi ne dund bi amul ñu ngi ne dañuy wàññi nangam xëyam ndaw ñi amul nangam yooyu yëpp te euh, barki démb am na ku wax koo xamante ni yaakaar naa papay kii la papay euh, Basiiru Seen ñu ne wax na ci kii bi journal bi laa ko dégg mu ne nanu lijjanti sama doom ndax parce que ban koo kiiyee ba léegi ñen ci gaañoon sax lijjanti nañ ba jàpp ñen gaañoon man sama doom ji nu yooyu la ñuy xaar waaye xaaruñu wax dëgg yàlla ñu bàyyi coow li rek mu jóg mu jóg mbir mii nag ci waxi Bouba Ndour bu dee ci wàllu dossier bi ñun suñu yoon nekku ci xamuñu ci dara waxuñu ci waaye waxi Bouba ji daal wax junu frappé la wax junu marke la te wax ji li tax mu marqué lu day waxi dëgg par parloo da caa génn eh, lépp génn ci dëgg rek nekk ci biir moom it mu am courage am encourage am fit am njàmbaarte gu mën a taxaw ak sénégalais yépp mu wax ko sans complexe kon ñu ngi taxaw li fi di ñaan yàlla nu yàlla may wérug yaram ak wérug d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 yéen rekk la fi nekkar ngir ay xibaar yu wér te wóor